sëriñ Abdou Salam Mbacke borom alxuraan sëriñ Abdou Salam Mbacke mi nga xam ne diggoog lool sunu borom bu lay seetal day mel ni ku jàkkaarloog seetu di la wax ci sa ay mbir mën bayre lool dalay defal bayre ba ku jàkkaarloog yow rek bëgg la fa fasaasa ubbeeku ba képp ku la gis dalay jox cofeel am na ay xeetu ndomb yoo xam ne lépp looy xëccoog doomu aadama rek yaay nekk ca kaw ah sëriñ Abdou Salam nag bàyyiwul benn yoon waa bitim réew yow mii nga xam ne ay këyit rek mooy sa yitte yow mi nga xam ne sa yoon da ngaa bëgg mu leer naññ dawal gaaw seeti sëriñ Abdou Salam Mbacke jëkkër nga bëgg sëriñ Abdou Salam daf la ciy defal ay ñaan yow mi bëgg soxna te muy sa yitte lool sëriñ Abdou Salaam daf ciy def ay ñaan moom mii di sëriñ Abdou Salaam nag nee na du ma bàyyi benn yoon ñi nga xam ne dañoo am feebar ndoxum siti it wala sax nag ngóor a sonn la lool nee na benn pot laa jox meew nga ci def tàngal ba mu tàng jër daal di koy naan rek sa lépp faju képp koo xam ne bëgg nga sa ay aajo faju rek dawal gaaw nga daal di seeti sëriñ Abdou Salam Mbacke Dakar Guédiawaye marché Sam ko téléphone bi di 78 433 78 78 sëriñ Abdou Salam Mbacke kéemaanu yàlla rek la الملة أنا جوبة أونلاين أنا جدا أنا تدري من أنا تدري Good morning.

assalamu aleykum wa taala wabarakatuh bandiraɓe imam wi wuuro ngo fof salminama jurama gueddel engi ni ɗoare zaran mundur, mundur ibou ndour engi ini, pagi engi ni bajini lirɓe yow yow cameraman do do camera entrée bu ñu dugg

Rolle Granchino. Padigliolo e Iagnani, guarda. Devo Thank you yëpp. nga saaf suuf ba mu ko def waaye bu ko ay doomam sonn. bokkoo mu sonn. Thank you. মনে টুকু নেই Thank you. non léegi rek ñu ñëw. waaw ñëw leen yéen ñaar ñi wala. ngedel yang ini Doare Zaran mundur Ndur Ibu Ndur yang Fatim Lo yang ini Baji Mundir Yo yo kameraman duduk duduk kameraman oh. bunyi duduk Lu ada ngedel ini Doare Zaran yang ini ngedel apa lanjut? Ini mundur. Itu mundur dia aku nih macam Udah tahu ini kita mulai lebih tim lagi. Ada darah. non léegi rek ñu ñëw. wala ñëw leen yéen ñaar ñi wala.

哎，不能买，不能买，不能买，不能买，那真。